tàmbalee ci njëkk nit ñi mboolem ñi fi teew ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di siyaare ñëpp. di siyaare ñëpp. di ñaan it yàlla mi ñu mayoon ñu fekke woon ko daaw te fekkewaat ko tey jii. te di ñaan yàlla mi ñu mayoon ñu fekkoon ko daaw te fekkewaat ko tey jii. mu may ñu fekkewaat ko ay yoon yoon. mu may ñu fekkewaat ko ay yoon yoon. ànd ak wér ak jàmm. ànd ak wér ak jàmm. sax ci ndigalul sëriñ bi. ak sax ci ndigalul sëriñ bi. ci baaxub sëriñ bi. ci baaxu sëriñ bi. mi ngi tàmbalee ci sant mbokki taalibe yëpp. mi ngi tàmbalee ci sant mbokki taalibe yépp ba ci ñi nga xam ne dañoo féete ci liggéeyu kër gi. ñi nga xam ne dañoo féete ci liggéeyu kër gi. te balaa bis bee ñëw loolu ñu yittewoo te mu mën lu yomb ñu mat ñu koy taxawu. ndax balaa bis bee ñëw loolu ñu yittewoo te mu nuru lu yomb muy mat dañ ciy taxaw na mat. ñu taxawee dafa rafet lool te yal yàlla fay leen ci ngeen mu ne ni ñu ciy taxaw dafa rafet lool te yal na yàlla fay ngeen ngi fay. waaw mu ne day nuru lu yomb waaye yombut. mbokki taalibe yi nga xam ne itam. mu ne mbokki taalibe yi nga xam ne tam. balaa bis bee balaa bis bee ñëw. ñu tàmbali koo waajal di ci sonn. ñu tàmbali koo waajal di ci sonn. su bis bi ñëwee itam ñu di ci sonn lool. bu bis bi ñëwee tamit ñu ciy sonn lool. ba bis bi jàllee itam ni ki tey ji ñu ciy sonn coono yu méttee métti. bu bis bi jàllee itam ni ki tey ji ñu ciy sonn coono yu méttee métti. ak mboolem ñi fi teew ñëpp te yàlla tax. ak mboolem ñi fi teew ñëpp te yàlla tax. ñu ngi maase ci sant yëpp ñu ngi sant ñëpp. mu ngi maase di sant ñëpp. coono yi dafa metti ba li koy woyofal rek mooy. mun ne coono yi dafa metti ba li koy woyofal mooy. li sëñ bu mag bi waxoon ne. mun ne li sëñ bi mag waxoon ne. kenn deful kenn dara. kenn deful kenn dara. kenn defalul kenn dara. kenn defalul kenn dara. lu waay def rek boppam. lu waay def rek boppam. waaw loolu mooy tax rek coono yu metti yi di woyof ci man ci wet. nee na moo loolooy tax coono yu metti yi di woyof ci moom ci wet. ak li ñuy wax ne. mu ne am na ñu wax ne. ak li ñuy wax ne. ak li ñuy wax ne. boo sonnee ci lu baax. boo sonnee ci lu baax. coono ba day daal di dem. coono ba day daal di dem. lu baax la des fa. lu baax la des fa. tiyaaba ja des fa. tiyaaba ja des fa. boo toppee la la neex nag. boo toppee la la neex nag. neex sa bakkan. neex sa bakkan. ba tax nga def lu yàlla bañ. ba tax nga def lu yàlla bañ. bànneex ba de daal di dem. bànneex ba day daal di dem. bàkkaar ba des fa. bàkkaar ba des fa. yal na yàlla fay leen ci taxawaay yëpp ci baaxub nañu yàlla fay ci taxawaay yëpp ci baaxub sëriñ bi. ñun ñëpp nag ameel nañu suñu boroom cant goo xam ne. mu ne ñun ñëpp ameel nañu suñu boroom cant goo xam ne. mënuñu koo matale. mënuñu koo matale. bi nu yàlla mayee nu bokk ci waa lislaam bi ñu yàlla mayee ñu bokk ci waa lislaam day xéewal gu doy sëkk day xéewal gu doy sëkk mu boole ñu bokk ci waa kër sëriñ bi nag mu boole ñu bokk ci waa kër sëriñ bi nekk ci yoonu sëriñ bi nag nekk ci yoonu sëriñ bi loolu dafa rëy lool dara tollu ni loolu dafa rëy lool dara tollu ni daa mel ne nag gannaaw bu gëm yàlla jàllee mu ne daa mel ne nag gannaaw bu gëm yàlla jàllee sopp yàlla. sopp yàlla. ak sopp ku yàlla sopp. ak sopp ku yàlla sopp. ak sopp lu yàlla sopp. ak sopp lu yàlla sopp. moo gën a rëy ci mboolem xeeti tawféex yi. moo gën a rëy ci mboolem xeeti tawféex yi. tawféex yi yàlla tawféexale ab jaam. tawféex yi yàlla tawféexale ab jaam. te mel na ne mboolem ñu nekk ci yoonu sëriñ bi moom. mel na ne mboolem ñu nekk ci yoonu sëriñ bi moom. sëriñ bi ëmbaale na leen ci sopp gi mu sopp yàlla. sëriñ bi ëmbaale na leen ci sopp gi mu sopp yàlla. sëriñ Touba. mu ne sëriñ Touba. ci coobare yàlla. ci coobare yàlla. yàlla da koo defal sopp yàlla. da koo defal sopp yàlla. ba yàlla gënal ko lu dul yàlla. ba yàlla gënal ko lu dul yàlla. gannaaw yàlla it yàlla def ko mu sopp bi ba. gannaaw yàlla tamit yàlla def ko mu sopp yonent bi ba. soppewu ni leneen. soppewu ni leneen. ni yàlla yi defee nag. mu ne ni yàlla yi defee nag. li ci ëpp pay day xeetoog jëf ja. li ci ëpp pay day xeetoog jëf ja. sëriñ bi ni mu soppe yàlla ak yonent bi. sëriñ bi ni mu soppe yàlla ak yonent bi. te yàlla rek xam ni mu toll. te yàlla rek xam ni mu toll. moo tax mu bind ci boo dee xool majmuha mu ne moo tax mu bind boo dee xool majmuha xët wa tolloog téeméer ak ñeent fukk ak ñeent xët wa tolloog téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mu ne yàlla miy dogal dogal na mu ne yàlla miy dogal dogal na man mi bind araf yii man mi bind araf yii malaaka yi niñ ma soppee soppiwuñ ni keneen malaaka yi niñ ma soppee soppee soppiwuñ ni keneen gannaaw yàlla ñi yàlla mës a yónni itam. ñi yàlla mës yoon yónni itam. ak ñam ak ñam mës a solo te yónniwu leen. ak ñam mës a solo te leen. ñëpp dañ koo sopp nee na gannaaw yàlla. ñoom ñëpp dañ ko sopp nee na gannaaw yàlla. cofeel goo xam ne soppiwuñ ko keneen. cofeel goo xam ne soppiwuñu ko keneen. soppiwuñ ci keneen lu toll noonu. soppiwuñu ci keneen lu toll noonu. ñi yàlla may cër ci yàlla itam ñëpp nee na. ñi yàlla may cër ci yàlla tamit ñëpp nee nañ. sëñ bi ma wax loolu moo ko bind. sëñ bi ma wax loolu moo ko bind. ne ni ñu ko soppi soppiwuñu keneen gannaaw yàlla. ne ni ko soppi soppiwuñu ko keneen gannaaw yàlla. ñi gëm yàlla te seenu gëm matit. ñi gëm yàlla te seenu gëm matit. mu ne ni ko soppi gannaaw yàlla. mu ne ni ko soppi gannaaw yàlla. soppiwuñu keneen mbaa leneen. soppiwuñu keneen baa leneen. sëñ bi nag noonu ko yàlla jagleele cofeel gu demee noonu. sëñ bi nag noonu ko yàlla jagleele ko cofeel gu demee noonu. da koo jagleel mu xamee noonu yàlla. da koo jagleel mu xamee noonu yàlla. amee noonu yàlla. amee noonu yàlla. nga xam ne lépp lu yàlla bëgg. nga xam ne lépp lu yàlla bëgg. lépp lu yàlla bëgg rek. lépp lu yàlla bëgg rek. moom rekk lay bëgg. moom rek lay bëgg. lépp lu yàlla bëgg yi defal na ko yàlla. lépp lu yàlla bëgg tamit defal na ko yàlla. lu yàlla bëggut it mosu koo jege. lu yàlla bëggut it koo jege. ba mu ne sax. mu ne ba mu ne sax. moom sëriñ bi mu ne. moom sëriñ bi mu ne. mësta fàtte. mësta fàtte. mësta juum. mësta juum. mësta jàdd jàdd gu tuuti rawante na gu mag. tuuti rawante gu mag. maam itam. mu ne maam Thierno itam. mi ñuy fàttaliku ba tax ñu daje fii. mi ñuy fàttaliku ba tax ñu daje fii. yàlla tawféexale ko. yàlla taw tawféexale ko. sëriñ bi moo ko féetaleel boppam. sëriñ bi moo ko féetaleel boppam. moom it bëggut lu may sëriñ bi. moom it bëggut lu may sëriñ bi. ba sëriñ bi waxanteeg moom ci mbind yi mu koy bind ne ko. ba sëriñ ba waxanteeg moom ci mbind mi ngi koy bind ne yow mi ñu rendee paakab sopp ma. yow mi ñu rendee paakab sopp ma. waaw mel ne cofeel gi mu ko sopp day paaka ñu ko ci moom ku ki borom daaru la. mu ne cofeel gi mu ko fa sopp day paaka ñu rendee ko ci moom. waaw noonu la ko sëñ bi bindee ci baati arab yi. noonu la ko sëñ bi bind ci baati arab yi mu ne. moom itam bi ko yàlla maye mu féeteeg sëñ bi te soppe ko noonu. moom itam bi ko yàlla maye mu féeteeg sëñ bi te soppe ko noonu. yàlla da koo may mu xam ci sëñ bi loo xam ne mel na ne keneen xamu ko ci. yàlla da koo may mu xam ci sëñ bi loo xam ne mel na ne keneen xamu ko ci. yàlla may ko it mu am ci loo xam ne daa mel ni keneen amu ko ci. yàlla may ko it mu am ci loo xam ne daa mel ni keneen amu ko ci. yàlla defal ko itam sëriñ bi ci boppam. mu ne yàlla defal ko tamit sëriñ bi ci boppam. seeral ko ne. seeral ko ne. mësuta tàggoog moom. mësuta tàggoog moom. mësuta jàdd lu tuuti tuuti. mësuta jàdd lu tuuti tuuti. ci ak bëgg moom sëriñ bi. ci ak bëgg moom sëriñ bi. te loolu lu mu bind la ci lettre yi ñu bari di ko jàng ñu bari miin nañ ko. mu ne loolu ci bind la ci lettre yu bari ñu di ko jàng ñu bari miin nañ ko. waaw du rek lu ñu koy waxtaanee léegi lu sëñ bind moom muy lettre yu bari ñu koy jàng ba léegi. mu ne du rek lu ñuy waxtaane loo xamee dañ koy waxtaanee lettre yi bari na loolu ñu koy jàng ba léegi. kon sëriñ bi yàllaa ko jagleel sopp yàlla kon sëriñ bi yàllaa ko jagleel sopp yàlla. te musta jàdd lu tuuti tuuti la yàlla bëgg. musta jàdd lu tuuti tuuti la yàlla bëgg. maam jagleel ko sopp sëriñ bi. maam Thierno itam yàlla jagleel ko sopp sëriñ bi. te musta jàdd lu sëriñ bëgg lu mu tuuti tuuti. musta jàdd lu sëriñ bi bëgg lu mu tuuti tuuti. waaw ñun ñu ànd ak ñoom nag. ñun ñu ànd ak moom nag. yàlla may na ñu sopp leen. yàlla may na ñu sopp leen. sopp sëriñ bi sopp borom daaru sopp seen seen ñun ñëpp seen waa kër ñëpp. sopp sëriñ bi sopp borom daaru sopp seen waa këram ñëpp. loolu yàlla defal na ko ñun mboolem taalibe yi. yàlla defal na ko ñun mboolem taalibe yi. yàlla defal nañu ko ba noppi ñun mboolem taalibe yi. yàlla nañu ko ba noppi ñun mboolem taalibe yi. ba ci suñu biir sax. ba ci suñu biir sax. ku ci ràññiku ci sopp leen. ku ci ràññiku ci sopp leen. ñu gën laa sopp gën laa jàpp ngir loolu. ñu gën laa sopp gën laa jàpp. waaye nag bi ñu yàlla baaxee cofeel googu. waaye nag bi ñu yàlla baaxee cofeel googu. ci sëriñ Touba ak borom daaroog seen ñoom ci sëriñ Touba ak borom daaroog seen ñoom ñëpp. li ñu wutalee ñoom mooy. li ñu wutalee ñoom mooy. sëriñ Touba gannaaw bi mu soppee yàlla. sëriñ Touba gannaaw bi mu soppee yàlla. mës sa jàdd ci li yàlla bëgg dara mës sa jàdd ci yàlla bëgg li yàlla bëgg dara lu mu tuuti tuuti. borom daaru itam bi mu soppee sëriñ bi noonu. borom daaru itam bi mu soppee sëriñ bi noonu. mos mësa jaar dara lu mu tuuti ci li borom ci li sëñ Tuubaa bëgg. mësa jaar dara lu mu tuuti ci li sëñ Tuubaa bëgg. waaw ñun nag bi ñu yàlla xéewalee cofeel googu. ñun nag bi ñu yàlla xéewalee cofeel googu. daa mel ni lu xaw a jafe mooy. daa mel ni lu xaw a jafe mooy. bañ jàdd. bañ a jàdd. li ñu jafe ñun. li ñu jafe ñun. waaw mooy jàdd moo ñu jafe lool. bañ a jàdd moo ñu jafe lool. waaye nag sëriñ bi nee na woon. waaye nag sëriñ bi nee na woon. li wala fi wax naa li wala fi wax naa lu nit am yàllaa ko ko may. li wala fi wax naa lu nit am yàllaa ko ko may. lu mu amut yàllaa ko ko mayut. lu mu amut yàllaa ko ko mayut. sëriñ bi nee demewul noonu. sëriñ bi nee na demewut noonu. nit lu mu am yàllaa ko ko may. nit lu mu am yàllaa ko ko may. waaye lu mu amul moo ko ñaanut. lu mu waaye lu mu amul moo ko ñaanut. kon nag bi ñu yàlla mayee ñu soppe leen noonu. kon nag bi ñu yàlla mayee ñu soppe leen noonu. waaye nag bañ gee jàdd xaw noo jafe lool. waaye nag bañ gee jàdd xaw ñoo jafe lool. kon nañuy faral di ñaan ci seen daraja. kon nañuy faral di ñaan ci seen daraja. yàlla may ñu. yàlla may ñu. ñu ñu leen soppee. ñu ñu leen soppee. ñuy matale seen ndigal. ñuy matale seen ndigal. di bañ a jàdd bu jàdd mënta ñàkk buñ jàddee gaaw dellu ca yoon wa. di bañ a jàdd bu jàdd mënta ñàkk bu buñ jàddee gaaw dellu ca yoon wa. tey fàttalee ne li ñu waxoon ne ci la ñuy xàmmee nit aajoom faju na. mooy tey fàttalee li ñuy xàmmee nit aajoom faju na. mooy dem ba mënut a génn ndigal. dem ba mënut a génn ndigal. su demee ba làgg ci ndigal biir ak bitti. bu demee ba làgg ci ndigal biir ak bitti. nga xam ne mënut a fexe ba génnati ndigal. nga xam ne mënut a fexe ba génn ti ndigal. loolu màndargam faju aajo la. loolu màndargam faju aajo la. waaw bu demee dem itam ba mënta gis sikkus keneen. mu ne bu demee ba mënta gis sikkus keneen. boppam rek la mën a gis. boppam rek la mën a gis. sikkus boppam rek la mën a gis. sikkus boppam rek la mën a gis. loolu ba tey tegtalu ak defaru la. loolu tamit ba tey ñu tegtalu ak defaru la. waaw tegtalu paju aajo la. defaru paju aajo la. tegtalu paju aajo la. tegtalu paju aajo la. waaw kon dañuy jéem rek tey ñaan boole ci. mu ne kon dañuy jéem rek tey ñaan boole ci. daa mel ni li sëñ bi li sëñ Touba bëgg ak noog ñi ànd ak ñoom ñëpp. mu ne daa mel ni li sëñ bëgg ak Thierno ak ñi ànd ak ñoom ñëpp. ñu ci bari xam nañ ko. ñu ci bari xam nañ ko. daanaka daa mel ni xam gi moom jëfewut. mu ne daanaka xam gi jëfewut. waaye nag dogu gi. waaye nag dogu gi. ak bëgg lañ bëggoon te di ko jéem. ak bëgg lañ bëggoon te di ko jéem. waaw loolu moo xaw moo xaw a manqué ci ñun. loolu nag moo xaw a manqué ci ñun. mu ne kon nañu faral di ñaan ci seen daraja rek. mu ne kon nañuy faral di ñaan ci seen daraja rek. yàlla mi ñu may ñu sopp leen. yàlla mi ñu may ñu sopp leen. mu may ñu di bañ a jàdd seen yoon lu tuuti tuuti. mu mu may ñuy jéem di bañ a jàdd seenu yoon lu tuuti tuuti. te am na yàlla daa wuutale nit ñi am na ñoo xam ne lee lee da leen di yomb lee jafe leen. mu ne yàlla daa wuutale nit ñi am na ñoo xam ne lee da leen di yomb lee jafe leen. ku ne ci ñun day seetlu bu baax boppam. mu ne ku ne ci ñun day seetlu bu baax boppam. lépp lu mu xam loo xam ne mu ngi koy def ci ndigal. lépp lu mu xam loo xam ne mu ngi koy def ci ndigal. sant yàlla te di ci góor góorgóorlu fu mu toll. sant yàlla te di ci góorgóorlu fu mu toll. lépp lu ko ci jafe muy ñaan yàlla yombal ko. lépp lu jafe muy ñaan yàlla yombal ko. lépp loo xam ne gis na ne moom ci tere yi du ko jege it. lépp loo xam ne gis na ne ci tere yi du ko jege it. mu sant yàlla. mu sant yàlla. gën di ko sori fu mu toll. gën di ko sori fu mu toll. lu mu gis ne nag yàllaa ko nattoo mu ci mu koy faral di def. lu mu gis ne yàllaa ko nattoo mu di ko faral di def. waaw fu mu toll di ko tuub. fu mu toll di ko tuub. tey ñaan rek. mu ne tey ñaan rek. àgg ci bañ koo jegee ti mukk mukk. àgg ci bañ koo jegeeti mukk mukk. waaw ñu ngi sant ñëpp ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp. waaw te. ñaan yàlla mi nga xam ne moom nu fi dajale ci baaxub sëriñ bi. te ñaan yàlla mi ñu fi dajale ci baaxub sëriñ bi. dolli ñu taw tawfeex ñu fekk ko ay yoon yoon. dolli ñu taw tawfeex ñu fekk ko ay yoon yoon. gën a sunu sopp ñu baax ñi gën a yokku. sunu sopp ñu baax ñi gën a yokk gën a wéy ci liñ bëgg itam gën a yokk gën a wéy ci liñ bëgg tamit gën a yokk kenn ku ci nekk rek la ko yàlla def mu jafe ko yàlla na ko yomb. kenn ku nekk la ko yàlla def mu jafe ko yàlla na ko yomb. lu kawe njortam. tubaarkaale mi ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp. nee na mi ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp. ku ne mën naa jàng faatiha ak fukki xul ak benn. mu ne ku ne mën naa jàng faatiha ak fukki xul wallaahu ak benn. ku mokkal allahu min kulli karim mu jàng ko ñetti yoon. ku mokkal allahu min kulli karim mu jàng ko ñetti yoon. ñu def ko muy addi borom daaru ak mbooleem ñu aju ci moom. ñu def ko muy addi borom daaru ak mbooleem ñu aju ci moom. ngi sant sëñ Mbaye Guèye Sylla ak mboolem mbokki yëpp. mu ne mi ngi sant sëñ Mbaye Guèye Sylla ak mboolem mbokki taalibe yi fi teew yëpp. yàlla fay leen te boole leen tawféex ci baaxub sëriñ na yàlla fay te boole leen tawféex ci baaxub sëriñ bi. waaw jërëjëf kay tubaarkàlla. mu ne ngeen jëf yéen ñëpp. mbokki taalibe yi dañuy yalwaat ci dara ne ba ku jàddoon dellu si mbaa ñu bañ a jàdd sax waaye noonu ñaan ci dara ji Serigne Touba ma doon tukki ak borom dara noonu ci mu waree woon dara ji Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké sa waaye ñëw bu sell woon Mbacké ngay ko fi lool te wér suñu borom gudd ak wér gu yaram musal la ci ndox dara ji Serigne Touba li ngay liggéeyal diine l'islam ci dara ji Serigne Touba Mbacké yàlla na ko yàggale fa ma bëgg a yàgg kenn toog leen toog leen di leen toog